dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen i ñu xëyandoo yéen i kaay gii di réew mi ko di cee xëy di ñu xamal lan ñu kàddu yu seede yi ba léegi nii ma ngi jib ci Babacar Touré di ab journaliste boo xam ne ràññoo ko woon lool ci Sénégal sos groupe de presse bi di Sud Communication ginnaw bi mu génnee àdduna ak léegi maanaam mbooleem témoignage yi nga xam ne moom la ñu dégg yépp benn la maanaam aw yiwam ak lu baaxam rekk la ñuy wax asan Samb xëy jël xalimaam ci yéen gii di réew mi ko di cee xëy wax ne Babacar Touré wane na ne ab journaliste war naa am personnalité te war ñu ko respecté yéen a kaay gi du na Babacar Touré daat nay dem waaye yóbbaale na ay secret d'état yu bare bari ndax Babacar Touré nit la koo xam ne xamoon na état lool bari woon na ay kilifa yu nekk ci réewum Sénégal ak ci sous bi yoo xam ne maanaam jaxasoo woon na ak ñoom yéen a kaay gi de xëy du ñu xamal naa ñu Bougane Gueye Dany muy Mademba Sock ak Babacar Diagne mi jiite Sénéra ñoom ñëpp seeni kàddu benn la ni ki démb nee nañu Babacar Touré nit la koo xamante ni maanaam ku respectable la nit ku fonk doomu aadama nit la koo xam ne fonk na dialogue lool ak justice yéen a kaay gii di réew mi quotidien ne jébbal nañ ko boromam niki démb ci sëg yi nga xam ne maanaam ñoo nekk Touba yéen a kaay gii di Les Échos ñu xëy fekk fa Abdoulaye Baldé maire Ziguinchor muy wax ci lu jëm ci wàllum tabaski gi ak jafe-jafe yi nga xam ne maanaam soo mooy tuulee askan wi dëkk Casamance danañu ko daal di amee ba tax moom Abdoulaye Baldé muy sàkku ci état bu Sénégal ak état bu Gambie ngir ñu ubbi frontière diggante Sénégal ak Gambie ngir nag askan wi nga xam ne ñooy jugee Dakar dem Ziguinchor duñu mën a am benn jafe ndax frontière bu ñu ko tëjee diggante Sénégal Gàmbi ñi nga xam ne ñooy dem Sigicoor dinañu dund musiba ak mbelengaana maanaam paas bi dafa yokk si ñooma beneen bi nag mooy dana danañu yàgg lool lool lool ci àll bi maanaam ñu mel ni ñu dem ñaari yoona yéen a kaay gi de la témoin xëy di ñu xamal lan ñu Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum wér gi yaram ci réew mi fan yi ñu génn dafa yëkkati ay kàddu di wax ne askanu Sénégal kenn ku nekk maanaam fa nga nekk na nga fa toog daal di fay tëbaskee waaye nag loolee nga xam ne ay kàddoom la askanu Sénégal dañ koo xotti tare daal di koy sànne ndax ñi nga xam ne waa témoin jot nañoo gis gisante ak ñoom la ñu leen xamal maanaam danañu dem tabaski ji ba nag sagar di xeeñ yéen kaay gi xëy di ñu xamal naan ñu préfet bu Ndakaaru moom nag daan nay avertir yi nga xam ne ñoo nekk Sandaga préfet bu Ndakaaru wax na leen leer nee na leen bu ñu tabaski ajjuma dimanche yéen ñëpp da ngeen jóge Sandaga loole nag damaa bëgg mu leer ci seenu bopp mu neex leen ak mu ñàkk leen a neex yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu diwaanu Mali ak jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji moo fa am journal bi nee na waa CEDEAO niki démb doon nañu réunir maanaam doon nañu réunion jaarale ko ci ab visioconférence waaye nag am na juróomi proposition yoo xam ne waa CEDEAO daan nañu koy def diggante askan wi nga xam na ñoo nekk Mali ak ñi ngànk nguur ga yéen kaay gi nee na sommet extraordinaire crise malienne boobee waa CEDEAO daan ñuy wax ne munta ñàkk lu toll ci fanweer ak benn cay député yoo xam ne danañu démissionné ndax anam bi nga xam ne moom la ñu leen falee jaarul yoon ba pare waa CEDEAO daan ñuy wax waa mouvement M5 ngir nag ñu dugg ci gouvernement bi yéen kaay gi di Dakar Times ñu xamal la ñu jafe yi nga xam ne Mali ñoo ngi koy dund kenn déggu ci réewum France France te waa France ñoom ñoo jël dogal léegi noppi ci jafe-jafe yi nga xam ne askanu Afrique maanaam ñoo ngi koy am te waa France ci ay xibaar jot nañ ko ne seen militaires yi nga xam ne ñoo nekk Mali soo muy tuule ñu ko retiré maanaam danañu leen fay jëlee yéen a kaay di réew mi ko di jeex xëy ci wàllum liggéeyante gi nga xam ne moo wulle ñaay ci réew mi journal bi def na ci ab reportage bu doy waar ak i témoignage yoo xam ne ku ko dégg sa yaram di daw am na benn xale bu jigéen boo xam ne nee na dafa liggéey coppem la waral nee na coppem bi ñoom ñaar dañu doon ànd muy neex ba mu yàgg mu daal di koy bàyyi dem seeti beneen xale bu jigéen loolee moo tax mu fay benn sëriñ lu toll ci quarante mille francs sëriñ bi defal ko ay déeba déeb waaye nee na ba mu ko defee xale bu góor bi dafa wàññeeku waat ñëwaat di ko jéggulu di ko tuubal am na ci benn xale bu góor boo xam ne moom nee na moom ti mu dafa liggéey copine ma ba copine bi daal di koy topp nee na sept mille quatre cent francs rek la daal di fayee wàllum liggéeyante gi ñi nga xam ne ñoo nekk ceen biir néegu say sax maanaam ñongo sa ndax am na ay jigéen ñoo xam ne dañuy liggéey seen borom kër bañ na ngodd ba lu ñu wax seen borom kër daal di koy def yéen gi xëy di ñu xamal naa ñu l'islam ak ak christianisme am na xeetu liggéey yoo xam ne dañu ko tere yéen a kaay giitu l'observateur xëy di ñu xamalaan ñu xale yu jigéen yi nga xam ne ñoom lañ doon wax ci Touba ne dañu leen ki yéen a kaay gi di libération nee na dara amu ci ndax xale yu jigéen yooyu maanaam lagrose la ñu nekkoon doon fo ngur daandaat doon fa balaxal mada maanaam ci seen bopp la ñu nekkoon xale bu jigéen bi nga xam ne moo si màkk ay atam toll si ñaar fukk ak juróom lépp moo ko planifié maanaam moo ko organisé ngir bëggoon a passé week-end bi ak copain fii ci Dakar journal bi nee na li am ba des lagrose gi la ñu nekkoon nekkoon woon ci seen bopp defal nañ leen ay test xool ba xam siim nañu seen mare ŋàññ wala siimuñu ko journal bi di Rewmi Quotidien mu ñu xamalaan ñu gendarmerie bu Touba la ñu dénk wàllum enquête bi waaye xale yu jigéen ñi ñoom lenn loo xam ne jot nañu ko wax nee nañu ba ñuy dem jumaa ja ngir ziare ji ab 4-4 moo gaare ci seen wet jël leen ñoom ñëpp mbogo mbogo leen dugal leen ci biir yéen kaay gi di sunu làmb xëy di ñu xamalaan ñu tafaatin booy ñaar deux combat la boo xam ne combat bu la ci tafaatin tafaatin nag dugg na ay yoonu yoon ci Pikine waaye nag am na fa ñetti victoire yéen kaay Modou Lo Ama Baldé journal bi nee na combat boobee ndax dina am jamono ji ñu bari amuñu njort bu rafet ne dina am ndax Luc Nicolaï mi ko tëgg ma ngi ci kasu bi te ay mbiram dara leeru ci